al ansari saaliw cun sunu xalifa yaa am ndigal topp faw jàmbaar ji yaa sëriñ saaliw bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di jëkke ci nuyoo boobu sëriñ Muntaxa Mbàkke mu sëriñ Basiru sëriñ Tuubaa di ko màggal di ko siyaare te ñaan mu yàgg fi te maa ngi nuyu sëriñ Cheikh sunu sang ba Serigne Cheikh mu Serigne Saliou di ñaan moom it mu yàgg fi téwér di nuyu bokki jullit yëpp bokki cantaakon yëpp ak bokki taalibe yi di leen sant bu baax te di leen siyaare ci weeru safar yi nga xam ni day weer wu am solo di weer wu màgg ci ñun murit di leen ci jaajëfal di yëkkati kàddu di am ak cant bu rëy di yëgal waa Sénégal di yëgal bokki jullit yépp ni jot nañu ndigal ci Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Saliou jumaa jooji nga xam ni di jumaay jànnatul maxwa te ci njalbeen Serigne Saliou Mbacké sunu sang ba yàlla na ko sunu borom fayal Euh, joxoon ci ndigal sëriñ Cheikh Béthio ngir mu defaral ko ci fàttali keroog ba muy jox ba mu koy jox ndigal googu mu ngi naan ko bëgg naa nga defal ma fi jumaa joo xam ni bu ko bu dàqul ci jumaa yi bu ko ci jumaa dàq euh, taxoon ndeysaan sunu sang ba Serigne Béthio euh, jële woon ko xol tabax jumaa ji wër àddina ngir yére yi gën ci yére yi ñu mën koo dëppale ak jumaa jooju jumaa jooju nag laata muy génn àddina jébbaloon na Serigne Cheikh Mbacké caabi yi ko ko joxee boobaak ak léegi eh, Serigne Cheikh ci mbaaxam gannaaw bam ci amee ndigalu Serigne Mountakha bëgg ñu ubbi jumaa ji mu wooluma jox ma ci ab cër ñu ciy sant lool ndax ba ko ko sëñ Béthio jébbalee rek lañ ci nuppi woon ñun waaye tawféex ji gën a rëy mooy daf nu caa boolewaat joxaat ñu ci ndigal ngir nu ànd ak moom ubbi jumaa jooju loolu nag muy cant gu rëy rëy ci ñun cantaaku moo da waraloon ma ma ma ma ma bànneex boobu di di ndamul lislaam di ndamul murit yëpp ma bëggoon koo bokk ak ñëpp moo waral sama woote bi ñu ngi ciy beral ak cant gu wér nag sëriñ Cheikh mi nga xam ni ñun ci moom la ñu jokk mooy sunu sëriñ mooy sunu sëriñ saan maa ngi ko ci sant cant gu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngir boolewaat boo bii mu ñu boolewaat ci liggéey boo bii liggéeyub sëriñ tubaab bii noonu nii mu ñu ci narganewaat te mënuñu woon a am lu ëpp lool maa ngi ñaan mu yàgg fi te wér te te te di ko xamal ni nun day euh, euh, soxlawunoo soxlawunu dara lu dul topp ci moom di jëfe ay ndigalam tey bàyyi ay tere loolu daal laa ne woon ci gàttal dinaa ko wax bokki taalibe yi di ci woo nag cantaakoon yëpp ak fu cantaakoon mën a ne bëgg naa bis bii nga xam ni day ubbi jumaa ji ñu fekke ko sëriñ bi nag diglewu ci sax ak ay xumbeel waaye nag digle nañ ci ñu jàng fay xasaay jàng fay jàng fa alxuraanul karim maa ngi woo suñu bokki taalibe yi cantaakoon yi nga xam ni ay jàngkati xasida lañ fu ci waay mën a ne bu bis baa na nga fa teew asalaamualeykum wa rahmatullah bis bi nag ma le vingt cinq bii muy ajuma ji ñu jëm eh, ci sama njëlbeenu wax waroon naa koo leeral eh, ñu ngi koy ubbi ajuma le vingt cinq ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre muy àjjuma bii ñu jub